man ni président Idriss donc depuis bërki démb quand même ma ne ko li nga xam nak moy moy logique te moy cohérence que ni jëlee nga ma ci poste deuxième vice président au parti bi li logique moy nga proposer président de la république kenen pour mu remplacer ma ci gouvernement mhm. donc mo démissionné ci poste bi jox ko dello. donc amna lu ma ci wax waxtan ci waxtaan ci président. d'accord na ci non d'accord ci.